maa lay fay. presse tey mu mel ni tey la combat bi lan la. waaw dara ama ah, nii la Moussa ne dafee open presse mooy li ci changé wu rek mooy accréditation yi ci am rek lañ ci changé. waaw foofu bëgg naa leeral ma ko pourquoi accréditation waaw accréditation yi xam nga rek dafa am loo xam ne moom dañ koo dañ dafa am image yoo xam ne dañ koo gis ah, ñu xaw ko ñaawlu tuuti muy tey journaliste yoo xam ne tey dañoo leen gis jàmbaar ñuy entraîné ñu waaw. ay nekk jàmbaar di entraîné. si yoo xam ne dañoo jël foofu ay interview ba pare nekk biir jàmbaar ñaareel bi da nga gis kenn koo xam ne vidéo am ñu ngi si muy Gàmbi booy ki kii may la mu ñu liggéey ah jàmbaar ah. xam nga ñun dañu sos. waaw loolu laa bëgg. Pape Sarr su may waxtaan moom faaw toog. ala benn micro ah, ah, dañoo gis benn pré benn jàmbaar ñëpp xam nañ ni jàmbaar ñoom ñooy boole ak waa parcelle yëpp di na ndoo boo jëlee interview ci ay mbëru jàmbaar ba pare lu sama gis-gis mooy nga dem ñibbi waaye bu ñu ñu gisee tey nga xamante ne ñii suñuy adversaire lañu ñu gis nga fay entraîné wala di bëreek ñoom suñu xel day teey ñaareel bi Gambie dama am benn vidéo buñ ñu envoyé fi Modou Lo newoon ñu gis fa benn journaliste di xandoor xandoor yu metti voilà loolu moo waral lii. kooku ci presse la nekk. ci presse la nekk waaw. moo waral ngeen moo waral ngeen yi loolu ci la bokk. ak yenn yoo xamante ne ñun gis nañu ay ay audio yoo xam ne dañ ñu ko envoyé. Eh waaw loolu la wax dëgg yàlla takkaluñu kenn nag gis nga bi nga ñëwee joxuñu la jox nañ la. jox nañ jox nañu li TV. jox nañu ñëpp jox nañu nday mbake jox nañu ñëpp man liste laa bind diw ak diw ak diw ñooñu noonu bind affaire bi ñoom dañoo am lu leen leer bu ñu amul woon lu leen leer du ñu am ñu ñuy bind lii du si am te soo xoolee ñun ñëpp ñun ñëpp ay soxlante man ñëpp samay frère lañu aw ma cee kenn problème du man la mais tey staffu écrit Fallaye ñoo décidé lii du Pape Sarr Pape Sarr keroog mais Pape Sarr am na lu mu jot a gis li ma gis nag la ñëpp gis. te li nga gis bokkul ci làmb. wala bokkul ci làmb yem ci seen liggéey ñu xam ne suñu làmb bi kafuñu ci foowuñu ci lii du foowukaay surtout genre bés yi du foowukaay. d'accord tey nan ngeen fas yéenee ñëwee stade Alassane Djigo gis nañ ni combat bi foowoo ci kafoo leen ci lan la. waaw li ma si gën a neex mooy tey Ama Baldé ku fi dugg wot na la. goro yow rek la watagul. wot na ma de maa ngi nii wot na ma de. ama daal paquetu lañ set la yor ku ñëw. paquetu lañ la mu xuuf la nga dem wotu ji nee nañu daal képp ku deful ndel jàpp ñu la ci supporteru Ama Baldé. moo tax boobu léegi xale yaa ngi wotu. ñëpp a ngi wotu di ci woote jàmm nag. surtout waa Pikine yëpp. képp koo xamante ne tey da ngaa foral Ama Baldé ñu ngi lay ñaan nga ñëw si jàmm ñu dalal suñu frère waa parcelle ñoom ñëpp ñu ñëw si jàmm parce que tey tamit ñun ñoo war a dimbali policiers yi dimbali promoteur bi parce que sonn na ci combat bi trop. ma koy ñaanal yàlla na si gis réussir bu jéggi dayoo. d' accord euh, euh, ama mi ngi door a bëri combat roi des arènes bi am enjeu lan la combat bi ñu toll wala li ngeen door a roi moo tax. waaye doo du loolu combat bi lig Nicolas barke Seydina Mohamed daf maa war a fay. ci lan combat bi maa ko jaay. bu am solo. combat bi maa ko jaay. début ba fin. maa ko jaay. jël naa la ci maa mi mi nga nga nga wax wax ju wax ju wax ju wax ju explosé. ñu ngi bàyyi gën a bàyyi xel combat ñu si gën a bàyyi xel combat bi mais après maa ngi ci doon dégg ay wax waaye bi jamaïcain génnee ay audio muy tas ñu taf waa jooju gars yi waxatuñ de noppi nañ de ki ma doon waxal noonu bi jamaïcain génnee ay audio ah taf ci internet bi mu tas ko lan moo tax daluñu daluñu jamaïcain mais combat bi dafa mel ni li ci laxasu dafa bari lan bari. dafa bari ñun dañoo duñu ay ngaaka ci làmb dañoo bokk ci làmb événement bu nekk fii la jaar dégg nga roi de arènes yi fi jaar yëpp damaa ànd ak ñoom dégg nga te yëpp dama ko gañe benn laa ci ànd ak Eumeu mu ñàkk ko tey mooy ñëwaat war a gunge sama rakk ñu koy ñaan ñu ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam mais dama ne la combat bi <laughs> combat bi suñu teg jeexal la de. Pikine la ko jëlee woon. Pikine la koy dugalaat bu soobee yàlla incha allah. Modou Lo di mbër mu mën a xeex buy dugg dee door bi gën day dóor. waaw ba ñun bañaluñ ko yooyu yëpp. billaay loo wax ci moo Lo rek am nga li nga bàyyi parce que ndaanaan la mbër la dañ ko koy nangul man du musuma koo sous-estimer mais dama ne la Ama moo ko mën. ñu doon wax Ama Baldé bu mu def ëppal presse su ko defee mën nañ koo jaay bu mu ko def yow yëpp ay ay ay nit yu doon génn di wax bu mu ko def bu mu def ngeen insisté da ngeen koy def. non ñu naan ay bu bu mu ko def dañoo dëkkul fii fii kuy jaay Ama Baldé amul fii Pikine ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du dagg pour ma wala ni ñoo bokk ndey muusu pikin bu fiy bëre di nga gis Eumeu Sène barki démb la Pokola ñëw def open press. sama kanam la ñëw Eumeu Sène war a bëre le douze. li mu jàppoon yëpp da koo bàyyi ñëw. fa ma fekk soutenir doomam jarbaatam mu nekk geste boo xamante ne dafa marqué ñu bari. bi ko gisee dama ne ko looy wut mu ne ma sama doom sama jarbaat la. ndogu ah, cantu ama yi dégg ngeen am am ama ba lu mu wax si booy ñang nañu génn si ñooñu du dagg nañ ci génn bàyyi leen ñu bàyyi ñuy def dëgg man sama puso laa yore képp ku ci am bis nga yàgg da ngay jàpp ne Pape Sarr kii rek la bëgg man doxewu ma noonu képp ku ci am bés dam ciy rib parce ñu bëri jàpp Ama du def ëppal presse. da def pour lan du def. parce que am ñu féen ci internet daan Ama Baldé soo bëggee daan bul def ëppal presse parce que dañ lay jaay kenn ku ne wax. non non ñooñu seen waxu bopp la. ñooñu seen waxu boobu seen xalaat la ñu wax quoi mais ñun ñuy jege ko ak ay staff am xam nañu bu baax fi ñuy teg suñu tànk. bi ngeen déggoo kàddu yooyu jaxasewu leen. déedéet dara jaxasewuñu yooyu dépasse dégg nañu lu raw loolu dégg nañu sëriñ bu naan tey la fii fii la fii la fii la Amady daanoo. loolu kay fa laa tëjee sama kàddu. combat Tafaat combat Malick Niang. gis nañu sëriñ bu mag am na ko ko waxaat ci bii. ah am na keneen sëriñ bu defaat sotti ne Ama Baldé Modou Lô la koy daal. waaw moom moom moom sëriñ boobu barki Seydina Mohamed pour nga xamante ne damay ut njëllam ut fotom ut njëllam dem jébbalu ko jébbalu si moom billaay wallaay talaay su ma ko garante mercredi wala jeudi la waajuram bu jigéen di dee su ma ko garante lay jour bi yaayam di dee ma jébbalu si moom ut ut si moom njël a ah, ah, mais yow kii ñi kii mënul duul loolu waxu duul kat la de Ama Baldé day daanoog yooyu noonu ah Pape Sarr ku ko wax day duul day duul wax ju sedd bokk wax bu sedd day duul. nga dégg xaw a tiit. man loolu daf maa tiital man may ceddoo man may dugg ñoom fi ñuy rootee duñu fa dugg. barki rasulullah fi may dugg ñooñu di seet yooyu duñ fa dugg barki Seydina Mohamed. billaay wallaay tallaay ay kilifa yoo xamante ne billaay wallaay tallaay du ñu génn télé te mosu ñoo ñëw Dakar sama diggante ak yàlla bëgguñu sax ñëw Dakar barki yaa rasulullah duñ fa duggu dugg. billaay wallaay tallaay dégg na li sëriñ boobu non waaye yow Amadou seetaan YouTube amul TikTok amul YouTube téléphone simple la yor. borom njël téléphone simple la yor <laughs> ñun ñii ñooy ba ñun ñooy dégg kooku noonu wax loolu. am na lu ñu waxante ma ak moom. joxante ngeen ay waaw mu ne dafa juum. ah d' accord d' accord na ne dafa juum stade Amadou bari laa ko fekk si kaw tribune bi ne ko li nga wax nii damaa bëgg nga delluwaat ci mu ne ma damaa juum grand barki Seydina Mohamed mu set ci wicc. damay jënd glace. non du jëndul sa dafa juum. parce que moom xamul ban ban jour jeudi wala vendredi na ci wax de moom jour boobu lay génn aduna ba may ut njëllam jébbalu ci moom di ko jox addiya chaque mercredi. bu la waxee loolu. waaw bu bu loolu loolu mu wax noonu bu nekkee am na ñaata mbër la ngeen mu ñu daan ko bëri na nañu bàyyi yooyu génn si affaire yii yi ñuy def nii di loolu mooy maye client ndam yàlla moo koy joxe. wala ñun dañuy tàllal loxo suñu borom. di ñaan yàlla ma ñu ndam di tàllal loxo kilifa diina yëpp di ñaan di tàllal loxo waa Touba sëñ Taxa Mbàkke maa ngi nuyu bu baax buuba def si kot Kébé képp koo xamante woon indi woon naa la si combat boo Niang bii di ñëw bu soobee yàlla maa ngi la si woo buuba def si kot maa ngi lay woo borom daaru maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax gis naa ni nga taxawoo maa ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal waaw di nuyu Kumba Balde waaw di nuyu Kumba Balde bu baax di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi. barke waaw nit ku baax la. nit ku dëgg la waaw. li tax ma jàpp ko dafa wax kàddu yoo xam ne sànq dafa daw ah. suma yaram. parce que dafa ne ma Boy Niang combat Jacob ah. bi dafa génn lu bari jox ma. suma frère la suma lépp la. ñi bëgg a tas pikit ba a ruube bëgg a indi ay wax nan noppi quoi. non koom non combat Pokola dana ñooñu noppi parce que ñun ñu fii fekk ñun fii du ñu nangu kenn ñëw di ñu jaxase bul sax sonal sa bopp. man man façon drapo bu nekk am na fi Eumeu Sène dëkkul fii mais drapeau roi des arènes mu ngi sama nekk ama combat bi mu mujjee bëre le 16 février 2018 mook Papa Sow mu ngi sama nekk Ama Balde kati senior mooy deuxième combat Ama Balde mu ngi si man man waaw. dégg nga nañu bàyyi yooyu maa ngi gërëm suma frère sama seex Paate Balde waaw suma xarit la ku ma jàpp la waaw di gërëm Baye Ndiaye tamit. di gërëm Aziz Ilimane Lam Tafa Naar Birane nduur laay tëjee sama doomu nday suma xarit Keba Kanté Ablaye Diop Xaas ñoom ñëpp dañ may jàppale maa ngi leen di gërëm bu baax Ibrahima Diop Kajoor production moom it macha allah maa ngi koy gërëm bu baax a baax Fadel yow it yow zéro faute yow kenn du la jiñ ci dara yow yàlla na la yàlla defal jàmm yow journaliste da ngay xam journaliste nga. billaay wallaay talaay journaliste nag bu nekkee mbër nga nga dem takki ngeen mu bëri ji voilà. ji <laughs> ku ba. mais ñel bi bees tàq nooy def ah ma wat ngeen ah ma ah ma fexe ba wat ma. ñel bi bees ba wat ma barke sëñ Bamba. mais ni Ndiaye. làmb ngi. dafa mel ni commencé ngeen làmb. waaw mais làmb dafa neex. Ah. làmb dafa neex moo tax gars bi trouvaille bi dafa doy waar. Ameth Diomba xaa ngi nii. waaw làmb jee tax mu ñibbisi. barke sëriñ Bamba. xam nga ni kii danoo yàgg ak moom. kii bi ñuy di defar ay laafa la. bi ñuy ket di dajale laafa mais lamb ji incha allah ñu ngi ñaan yàlla buur bi suñu borom mu defal ñu ndam lu sedd guy. li ma jaaxal mooy Modou Lo nee na mooy roi mooy king. waaw moo loolu loolu kay xale ndaw yi xam nañu mooy roi. nee na bu ngeen di xëy ñëw di ngeen toog ndax moom li muy mobiliser attandoo leen. bi moom ñoo ko moom. loolu moom naa wax leneen ndax dèjà stade fees na te dimanche jotagul léegi li ci mooy na ñëw ndànk ñu ko ndànk Modou Lo jox paas ndànk mu ñibbi ndànk. nee ñun ñun Ama Baldé. Modou Xarañ Ama Baldé Modou Xarañ. bëgg naa ñëw. waaw loolu dafa leer. am na Ama Baldé waaw lu mënul ñàkk la. sa diggante ak Ama. waaw xam nga loo xam Ama moom yow na Baye Fall la nitu nitu yàlla la moom lépp lu mu doon def ci làmb bu jotee da koy defaat bu doon mës naa ñëw sa kër lekk fa mbaxal ñu ne ginaaw suba lay bëre mu ñëwoon sa kër lekk fa mbaxal day ñëwaat sa kër lekk fa mbaxal couleur quoi waaw couleur moom noo lay doxee làmb lam boo yéexee ñëw da lay woo ne la sama combat nga bëgg a yàq yan la loo attanul ma ne ko ci lan maanaam képp ki gën a ndaw ci ki gën a ndaw ci ñi muy àndal sa da leen jox cër waaw loolu moo tax mu doy waa dafa naqaree daan. mais am nga am nga am nga la moral boobu. waaw moralu lan. moral mooy waaj ndax sa je ndax sa xel dal na. non mais Ama Baldé bi ñëpp nee baaxul. ci lay ñëw def li nga xam ne nii moo ko moom maanaam bëre daan ama ci Ama la fekk baax amul ku yàlla bind li ma waxoon stade combat Pokola bi nee naa leen tey la judd bi dimanche la ngénte bi te roi des arènes lay tudd. kon tey dimanche la woon tudd bi. dimanche la woon judd bi judd bi. judd bi judd bii di ñëw lañ koy ngénte tey roi de arènes lay tudd. ay wax feeñ na fii de. ay wax feeñ na foofu de ñu gis nga ëmb Pokola indi ko. gérer bis bi magal xale yi jëmmal leen ba yàlla def li muy def tey eh, tey est-ce que yomboon na. waaw sant yàlla rek doole sant ca lañ ko doon sant. loolu yëpp mbir sunu borom la Pokola suñ ko ngeen buñ ko bootee indi ko ñu ko war a boot indi ko nag sunu jarbaat la te ku suñ nekk suñu xam nga jarbaat fi mu toll suñ lijaayam suñ devoir rek lañ def. d'accord tey ngeen jeexal bis boobu dëgmal beneen bis boo xam ne combat royal la roi des arènes ngeen ko wër pour bëri nan ngeen waaje waaw comme ni ñu daan waajee woo suñuy mbokk waaw woo Pikine gépp woo képp koo xam ne sa xol Falaye Baldé ngi ci waxuñu Ama Baldé de képp koo xam ne sa xol Falaye Falaye Baldé mu ci. ñu ngi lay woo pour nga ñëw jàppale Ama ndax ku jàppale Ama jàppale nga Falaay te ku jàppale Ama jàppale nga Pikine ndax Ama mooy Pikine te bu dëgg jeexee rek Pikine mooy Sénégal. Pikine mooy Sénégal foo teg loolu parcelle mooy Sénégal nga ne. Pikine mooy Sénégal. foo teg loolu mooy dëkku jàmbaar yi. nag. non ñun fi ñu dëkk lañ xam mooy dëkku jàmbaar yi. parcelle nekk roi des arènes nga ne bëgg nga bëgg a parcelle man naa gën a kawe parcelle. jàmbaar kuy min na mbalka de roi des arènes min na Pikine fii la ko jëlee woon moom Modou Lo fii la ko jëlee woon. miin nañ ko dañ ko miin. fii la ko jëlee woon Roan. suñu yëf mais fii la ko jëlee woon. waaw moo tax ma ne miin nañ ko dugg Pikine fii fi lim fi ko dem. moo tax ma ne la miin nañ ko suñu yëf la ñoo ko fa te bu àdduna wàccee loxoom ñu ne ko indil. indil Modou Lo doy waar ba ñu tuddee ko xarañ nga naan indil. mu ne. li tax ñu tuddee ko xarañ. xarañ loolu seen wax la yàlla sunu si. non loolu moom làmb yëpp maase na nangu. noo ñoom ñi ko gëm ñu mu daan seen xarañ la yéen du seen xarit. mukk si àjjana. waaw kaay ca laa ñuy waxee noonu borom del be kaay beneen borom del taxawal borom borom del taxawal taxawal borom borom del taxawal waaye borom del bi waaye ndelam bi dana daanu dana daanu ndax moom ndel ah dana daanu Malick dana daanooti ah TikTok am na gan <laughs> dana daanu daanooti dana daan daanooti <laughs> dana daan daanooti waa kaay waa waa taxawal waa taxawal. waa taxawal nangu taw ak man wala kii kaay taxawal waaw kaay war a ji. kan moo la wat. ama war a jox na ma 2000 war ji. ama moo la xuuf jox la 2000. ah Zil Malick Ama Balde moo ko xuuf ñoom mi ngi mais dafa mel ni li la Ama def dañ ci ànd ak plaisir. ah fierté lañ ci am moom rek la ñuy topp borom del. xanaa po xottu bi te lépp la ma wate lu mu def baax la 5 rek ñu ñor. Ah. waaw da ngay watu wala xuuf ba jox la. ba set waaw zila moo ko ah. aca dawal kon dawal. Malick Kaay borom saret bi moo ko jóg taxawal taxawal taxawal. da ngay da ngaa ñëw seetaan si làmb ji wala da nga koo faral yow. waaw. laa faral man. Modou Lo dañu ne da leen ngeen daanu. Modou Lo dañuy dóor ñu daanu. loolu wax jooju wax wax jooju faral na bi Ama daan na wax bu yàgg. mais fii ñi fi nekk doon watu ndel yow watu gondel man maa ñëw watu ngoon laa ñëw des na maa ngi ñëw may teg fas bi ñëw. Ama tegal na ma ko billaahi. te del ngay watu. billaahi walaay Modou Lo lu leer nañu laa la wax. Modou Lo di moo gën a doon xale Ama da koy nax. Modou Lo jeexal na si làmb ji. Ama nda Modou ndaanaan la de. non ah, Modou Lo ngay daan loolu amul werante. Hmm. billaahi da ngay daan loolu ma maa la ko wax. noo tudd jàpp sa yow. kan man Mame Mor laa tudd Maamour foo dëkk. man Géejawaay laa dëkk man Ama laa faral. Ah. billaa walaay Ama dama jaral na ma lu ne. kanam lay leer awa Ama kaay.